ba mas maawo ñu dem maintenant Mati Mao triplé du droit un deux trois crochet gauche de Moustapha Gueye Mamadou Ndeye Tyson reculé ba coup fa ñu jeex mu taxaw léegi nag bi mu taxawee nag intelligent ki lay moom Mamadou Ndeye Tyson ak tànku càmmoñam Moustapha di di réagir Moustapha Gueye wàcc na coppet tànk bi mooy action bii fii nag am na lu fi jib nag loo xamante ne xëy na dañ koy yemale ci diggante Moustapha Guèye ak Mohamed Ndao Tyson mu doon bëre bi Moustapha Guèye ne cappa tànku Mohamed Ndao Tyson nag am na lu am Ndao Tyson yëkkati ci gémmiñam wax ko maa ko dégg mu xam ko ma xam ko mais teewul ba tey mu nekk dans la logique am na mbër yoo xamante ne mat yi bu ñu tiitee dañuy bëree bu leen surprendre ba àgg leen foofu te ci la ñuy bëree mhm. je pense que moom man docteur Tyson ci façon mbëri yooyu la bokk parce que moment bi amul expérience bu mat comme Moustapha Gueye am mais teewul xool fi ko àgg léegi Moustapha Gueye amul dara lu mu def jàpp a jàppee képp na ko ci diggante ñaar tànk yi xool l'écart bi Mohamed Ndao Tyson indi fële nekk ci en mauvaise posture mhm. babasement ñu dem léegi Mohamed Ndao Tyson xool fii bu ñu ko wàññee maa woon de Tyson bañ daf ko ceinturé pour sukkandiku ko Tyson bañ xool accrochage bi loxo Tyson bi nekk fii ci kaw di crocheté mbagg Moustapha Guèye ak taayu Tyson ak gabagi Tyson xool Tyson encore son pied gauche fi mu ko bëgg a yóbbu ji. ba baamas maa ñu dem dafa ngay ceinture indi ko xool léegi nag lii nag mati nag euh, gars yi pour ñi nga xamante ne dañuy expliqué naan Mouhamed Ndao Tyson amul doole buñ ko waxati mënul bëre buñ ko waxati. amul souplesse buñ ko waxati parce que lépp loolu la wane xool nañ ko ceinturé pratiquement fii ku la wax Mohamed Ndao Tyson daanuwul doo ko gëm benn loxo bi rek moo ko supporté fi mu ne nii Moustapha Gueye ceinturé ko ceinture bu baax mais bu leen fàtte ne accrochage bi accroché li mu crochet extérieur bi Mohamed Ndao def Tyson ci épaule ki nga xamante ne moom Moustapha Gueye droit ça pose le problème Moustapha sànni ko nga gis ne moom Moustapha ñaari tànkam yaa ngi ci suuf benn baa ngi ni bi taxaw ni fi norme ñaari tànk Tyson léegi nii yëpp ci kaw jaww ji ba mas maaw ñu dem mu dee soo jàkkaarloo Tapha Gueye di ko sukkur bi mais mais maawo le jeu des pieds jeu des yi Tyson def fii xoolal tànku Tyson bi fu mu ko dugal mu ko dugal ci diggante ñaari xarit tànku mu Tapha Gueye di dóor fii di dóor fii pour Tapha Gueye déséquilibré ak pour Tapha Gueye bàyyi tànkam xoolal tànk yaa ngi dugg gauche dugg droite ñu dem jol jol léegi Tapha Gueye ba léegi combat bi jeexagul Tapha Gueye yaakaar ne moo daan Tyson non fekk bëy way na mbuus Tyson daan na Tapha Gueye bu yàgg mati manen dafa am importance te solo Tyson bokk na ci prise favorite mom moy accrochage ak li ñaan ushumata mbot jol-jol loolu mën nga ci nek champion du monde je me rappelle ñu ngi may expliqué un grand jeu de quoi di ma expliqué euh, ben ben benn champion du monde bo xamante kenn musu gagné ñu tuddoon Ginsing koku ben prise la amoon muy ci la nekkee trois fois champion olympique quatre fois champion du monde en judo bii prise donc la amoon crochette la lonk la yobula. la gis nga xool le jeu des jambes xool Tapha fu ne seet na ko fa xool loxo Tata bi, bii fu ñu yóbbu tànk Tapha jotu ko en déséquilibre en équilibre Tapha di jéem a génn tànk bi mu bañ dugal ko ci biir gis nga tu as vu le jeu des jambes Du dugg à l'intérieur extérieur ba Tapha ngay pare li muy def lépp nag di ko xar ngee pent pour tegal ko chaise Tata Sène accroché ko indi devant def jol jol kenke jol jol jol jamono yi nak mati ñu fatali rek 3 appui jël le won donc bëgg ci action bi 3 appui la tay Tyson fi la daana quand même Mohamed Ndaw tay fi la daane mustapha Guèye yi nga xamantene mo taxaw di wax ak yéen ni jël bu set wecc bu amul